nit ku baax ngi ni nit ku tedd ngi ni marok bi rek li ma war a sol ci événement bi yépp moo ko ñëw ba mu rafet jox ma may ñaan gaañ yi dama ko njëkk ñëpp tàccul te ñaanal ma ko héritage couture ñëpp xam nañu ko ci def lu rafet ak def lu baax waaye lépp rek jëm ji moo ko jiite di nit ku tedd di nit ku baax ko xamni serigne touba rek lay dund ku mu japp it serigne touba la eh. lay jàppee moom tey ñu ngi lay ñaanal baax waye ma ngi nuyu it eh, serigne mam Cheikh eh. Touré mom mi sëtu serigne Abdou Karim Touré la serigne Abdou Karim Touré mag ci yoon mourid xam nañ ko bu baax ni mu doone walli wàlliwu serigne touba ndax dégg nañu sax ci mat ñi ñu ne sayidina Jibril bu daan ñëw di fekk serigne touba melokaanu maamam la daan jël moom mii toog muy nit ku baax mu nit maa ngi nuyu aussi Cheikhouna doomu ndeyam Cheikhouna Soura ak Mbaye Wade ah su ma limee mën naa wax ndax man ñii ñoo ne ci sama ginnaaw di ma jàppale. te ay nit yu baax. fu jéego yi ma am di ko dox yëpp ñii ñoo ñoo téye samay tànk di ma tegal ay baax. c'est important donc je pense que partie boobu aussi daanaka Mohamed ñi nga amaat largement euh, kii bi sax bon xam vous ne risque risque boobu waaye dinañ ñëwaat si aussi yoo xamante ne mën nga gisee daal bi ngir tamit li nga xamante ne mooy seen ànd ak Mouhamed ak li nga xamante ne mooy euh, dëgg dëgg euh, dëgg waaw mooy lii si am bi ko rek dinañ si ñëwaat donc ñu dem te rapidement si question yi benn question la ñuy kii waxtu bi da ngeen ñu bokk na waxtu bi ñoo xool bu ñu paree nga jëlaat ah, voilà bu ñu paree si loolu. bon dama leen félicité ah di leen euh, souhaité succès bu rëy vraiment yombul yombul yombul ñëpp benn affaire ba yegg si si international yombul mais bon sama question lay posé pourquoi le choix sur Maroc Mohamed Ndiaye dafa am phase bu rëy boo xam ne wala sa parti fa la ko bëree moo tax nga dëkkee Maroc deuxième question euh, bi mooy est ce que ñu ngi xaar yeneen chanteur religieux ñu def ko prestation bon beneen bi tamit chaque fois da ngay dégg sa propos da ngay wax naan Mohamed da nga mel ni ku xaw a limité wu parce que booy xool boo nee artiste religieux la boo nee artiste religieux déjà la ñu dégg xool chaque fois da nga naan non damay limité wu si sa wóoy seen saal rek si ñu ngi xaar Mouhamed mu ñëw si yeneen religieux yi wóoy leen quoi yeneen nit yu baax parce que am nga ay fàtte tijaan am nga ay fàtte murid am nga ay fàtte sax mais peut être boo ko xamee ak boo ko xamul est ce que tamit loolu nekkul lay limité lay doon te koo tëgg rek ñu bëri wala nga fekk muy murid tijaan wala chrétien doo mën a doon sama question merci. bu njëkk bi bu njëkk bi mooy lan moo waral choix que moom sax ma tàmbali ka expliqué woon nga ko waaw waaw loolu Wah, waxoon naa ko ci njëlbeen gi Maroc gi tàmbali la ci kanam nañu xaar dinañ gis yeneen événement yu ñu war a def bitim réew te nekk ci sunu kanam d'ailleurs maa ngi ci di ci nuyu le grand Papis art bi ménagement mi nga xam ni euh, moom it ñu ngi ci bay waram bu baax di ñu ci taxaw di ñu ci jàppale bu baax a baax a baax a baax am nañu ay projet ñun ak moom te une heure diine yëpp yàlla dogal ma jël ko ma ñëw di ko ci sant naan ko di di ngand ngandlu naan ko waykatu diine yi naa nga keroog daf maa ramassé ci biir mbooloo bi dama yow doo waykatu diine dama yow doo waykatu diine ndax mooy li mbaarik wax léegi yow li ngay way loolu leneen la ndax diine mooy sharia li ñuy jàngale ci sharia nii lañuy ñuy nii la ñuy wooree nii la ñuy nàngam ak sàngam waaye dafa am leneen ku ne xam ne ni islaam sharia la ak aqiqa ak lu ñu mënta xam la mënta xam nag loolu la sëñ tubaa indi ba ni ku ko topp liggéeyal ko mu def ci yow xam-xam bu ànd ak leeral xam-xam boobu nag doo dem mukk ci ay téere ak i fekk di ko fa fekk loolu yàlla moo koy def ci dënn góor mu di ko wax loolu nag mooy woy yi lenn la ci woy yi ñuy woy nit yi di ko dégg mu leen di jaaxal